bismillaahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokk yi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen uh, ndokkeel ci weeru teel sell wi ñu nekk rawat nag ñaari fan ñu toll muy uh, fanu màggal di ñaan suñu borom nangu ñu ci te boole ñi nga xam ne jàpp uh, sant leen leen sëñ bi nekk sant bu nangu nangu ci barkeem ginnaaw loolu ñu leen dalal fii ci résidence Cheikhul Khadim ñu rek weccoonte ak yéen ay kàddu jëm ci mahad al azhar dirasat wala buxuus xawla mawliya yaayam institut al azhar d'études et de recherche de euh, institut al azhar de recherche et d'études sur le mouridisme nekk mbootaay goo xam ne euh, yitteem mooy tasaare xam-xam rawatina tasaare mbindum ku baax ki jàngalam ku baax ki mboolem mbind yi nga xam dafa aju ci euh, yoon wi moo xam ay gëstukat moo xam ay dongay tool jàmm ñoo koy def ñu leen jàppale ci tasaare gi ak yi ni mel am nañu yenn daal waaye bu soobee yàlla xam naa dinañ ci euh, dikk incha allah mbooloo bi nag fi ñu toll ko jiite sëñ Mouhamadou Amine Sarr euh, moo coordonné lépp jëm ci liggéey bi ñoom ñëpp ñu teew fii xam na ne ku ci ne dana présenté bala moo ñëw ci kàddu yi nga xam ne moo yëkkati incha allah kon fi nga tàmbalee rek mooy sëñ Mouhamadou Amine Sarr dañ koy jox kàddu gi mu wax ñu dëgg dëgg lan mooy IAM la tàmbalee ak moo ko tax a jóg bisimilah sëñ bi. Euh, bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatulah. moom baax baax tey ziare euh, sëñ Mor ñu jërëjëf moom la ko leeralee am na solo waaw mu mel ni kon IAREM euh, di institut boobu nga xamante ne mooy institut euh, Al Azhar de recherche et d'étude sur le mouridisme institut la boo xamante ne noonu ko xalaatoon ànd koog sëñ Idrissa moom sëñ Mourtada Mbacke ak bàyyi Mouhamed Seye ca Île de France muy waxtaan ak ñu ko am ginnaaw bu ñu seetloo ak yéen mbokk yëpp. xam ne bariwaan yoo xamante ni mi ngi am solo lool ci yoon wi te xëy na mbokk yi duñ ci jotee ba ba mën a xam dëgg-dëgg bi li xam ci ñoom mu mel dañoo waxoon ne làkk wi mën naa euh, doon ab barrière boo xamante ne nit ñi duñ mën a accéder information boobu waaye mel na itam seetlu woon nañ ne mbokk yi euh, farataal lool di gëstu wala di liir lu mel loo xamante ne dina mën a yokk seen xam-xam ci lu jëm ci loolu kon mu ne woon na lan ba. taxawal ab institut boo xamante ne mboolem ñoom ñoom ñëpp day fexe ba ba daal lépp loo xam ne mënuñ sëriñ bi la wala mag ñu baax ñu ànd lool te lépp jëm ci diine ba mu ba mu jàpp lool jege ci képp koo xamante ne déggoo langue arabe masalan te dégg français ñu fexe ba bi di jàppale ci yow ci langue française yéen ci langue française waaye ñu ne yeneen sax langue occidentale yi lu ni anglais wala espagnol war nañoo dem bay traducteur yoo xamante ne dana jàppale ci. ñi nga xamante ne sax du ay murid yu cosaanoo Sénégal loolu mooy bunt bi la mën a ubbi beneen bi ne loolu naka koy bari xéwal bari na waaye léeg-léeg ak ak ak songaloo benn mbir yoon dafa jafe ñu doon kon nag ñu mën tàmbalee fi mën a tàmbalee rek mooy fexe suñu benn suñu borom njëriñ bu ñu koy boole euh, bu ko boolee ba gis téere boo xamante ne bu mat a génn la mu fexe ko génne ci tàmbali ba itam mu njëkkoon a def mooy créer ab association bu tuddoon ACDI muy association pour la création et développement de Ndiarème loolu ñu ngi wax ñu ngi nekkoon 2011 ñu am tey ay mbokk taal yu bëri nag képp ku ñu xalaatoon na rek yow lu mel ni mën xam-xam bu ëllëg ci jot cee bind lu bëri waajal ci ay ay ay ay ay texte ak ay structuration yoo xamante ne nag euh, léeg-léeg ñu dox ci léeg-léeg ñu taxaw waaye alhamdulilah rabbi alamin 2019 euh, ak léegi daal ci lañ njëkk a jëmbal xam naa seen soxna bi dina si ñëwaat ci réalisation bi jëmbal ko colloque boo xamante ci awoon borom xam-xam la bokkoon euh, ku ñuy wax faxam moom itam ci la bokkoon ñu ànd leen Marseille def ko fi mu bis boo xam ne bis la oo ci mbir yëpp ñu ñëwoon moom bis boo xamante ne bañ ko defee itam ci cosaan dañoo wax ne bis bi ñu ko mën a méngale mooy bis bi nga ne ñoom seen Abdoulaye Dieye mooy dañ defoon mooy bis bu amoon amoon solo mbokk yi bëri na woon ci ak borom xam-xam yi ñoom fexe ba institut boobu itam ba fi ñu ne institut sans mur la mooy borom xam-xam yi dañ ci liggéey euh, waaye amaguñ ay bâtiment waaye ñeneen gi mooy dem ba am institut ba am amee bâtiment mun a am ci dellu si waaye yéen bi daal mooy fexe rek. fépp fu xalaat ne xam-xam bi mën war na ko jëriñoo bu ci mënta jot ndax mënta jënd téere bi ñu fexe ba mënul téere bi may ko ko bu ci mënta jot ndax mënu koo jaarale ci langue bi ñu ko bindee ñu fexe ba ko ak mboolem xam-xam boo xam na njëriñ daal ñu taxaw ci xam naa ne dama guddoon waaye IARM daal loolu loolu moo ko sabab ñu ko ñu ko seq itam nag ay murid lañ ngeen di gis nii euh, sëñ Idrissa Mbacke moom sëñ Moussa daal ko ñëw jiite ñu euh, ku di wax Baye Mouhamed Seye sama wet tam ne sëñ Abdou Moussa tudd naa ko léegi sëñ Modou Niang ak sëñ Soumou Diop euh, xam naa bokk dañu waa ci ci li ci des yëpp daal ñoo ngi leen di sant bi barkeel ko te ñu su tawfeex suñu borom salaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Mouhamadou Amine ci kàddu yi am na solo lool leer na ko ko dégg lu mu bëggoon a xam ci yaayam dana ko xam bu euh, ma ko déggee bu baax mooy ne kon jéego yi mi ngi tàmbali 2011 2011 ak léegi nag moom gàtt gàtt fukki at ak ñaar la kon diggante boobu du ñàkk am na ay euh, réalisation ay jëf yoo xam jot nañ ko amal suñu soxla bu bëggoon xam ci gàttal lan mooy li nga xam yaaram jot na ko amal loolu ñuy wax. salaamaaleykum wa rahmatulah. Euh, jërëjëf ci ci leeral yooyu ak sëñ Lamine ci noonu ñëwaat historique bi. waaw kay xam naa bu dee lu jëm ci wàllu réalisation yi yaay lañ jotagu ñuy def ñun sosoo ba léegi ndax comme ni ko suñu la ñu waxee daanaka bu ñu sosu association lañ defoon boo ne te mooy créé ko nag mën nañoo defee ne euh, tàmbali ak ko ci le grand public mu ngi amee mu ngi amoon en 2019 ca colloque boobu nga xam ne ñu def ci Marseille moom def naa ne mooy dëppoog sax ñu yaatal xalaat ci benn problématique boo xam ne mooy wàllum gëstu ci yoonu murit bi nga xam ne moom lay faral di àndal ci ay jafe-jafe ak yaatal xam-xam bi nga xam ne moom moo jëm ci yoon wi. loolu itam bu ko defee ñu ne woon nag comme ab la lay dox dina baax ñu fexe ba euh, gëstu yooyu ñu bañ a daje rek waxtaane ko bu noppee mu jeex waaye ñu yaxal ko bind ko war képp ku fekkee jotaay bi itam man di xam dëgg-dëgg li nga xam ne moom fi waxtaane woon. ak saafara yi nga xam ne jàppoon nañ ne mooy moom lañ am ci problématique yooyu nga xam ne ku fekk jotaay boobu itam boo ci bëggee ni saafara dina fekk gëstukat yi moom lañ te waxoon mu ne ñu dajale ñu kon da bokk ci yaayam war a njëkk a def mooy ni ñu daan def rek waxtaane ay mbir bàyyi mu jàll ñu fexe ba bii yoon wala mu fa waxtaane ñu bind ko bu noppee itam loolu ñu génn ko yaatal ko kon mooy téere bi ngeen gis moom lañ njëkk def mooy euh, lu ñuy wax acte colloque boobu nga xam ne moom lañ ci problématique de la recherche sur le mouridisme et le rôle de la diaspora dans la diffusion des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba waaw loolu mooy comme téere bi nga xam ne moom ngeen di moom ngeen gis nii. loolu mu ngi sosoo ci colloque boobu nga xam ne moom defoon ci mois de juillet 2019 ci Marseille nga xam ne borom xam-xam yu bëri comme ni nga ko waxee dajewoon nañ ci ci ki ci gënoon ràññeeku ci loolu itam di seen Cheikh Ahmadou Abdoul Wadoud ñi nga xam ne tam dundoon nañ woon ne te jotu woon naa teew mën nañ cee tudd ko moom docteur Souhaïbou Thiaw nga xam ne moom itam am ndam mu ngi ci biir téere bi waxtaan suñu Cheikh Ahmadou Abdoul Wadoud tam mu ngi ci so ñu jag préface bi tam ku wax professeur Magaye Ndiaye ñu xam ne ci université science Cheikh Anta Dakar yaakaar naa moo jiite woon département arabe moom moo ko def moo ko préfacé kon loo xam ne gëstu yu am solo lañ ci dajale woon ko ci biir bi ñu jógee mu loolu tam ñu ne dañu taxaw dañuy wéy ci dynamique di ànd ak ñi nga xam ne gëstukat nañ di fexe ba li ñuy gëstu te mu am solo lool ñu fexe ba mën na tasaaroo ci biir loolu itam ci la ñu càkkutéefu euh, imaam docteur Khadim Lo nga xam ne moo moo nekk Masaalikul Jinaan ànd ko ak imaam Cheikh Bachir Lo mu gën a fa nekk moom mu doon koo xam ne dafa yàgg di xeltu gëstu yàgg di bind gëstu ba mu ci at yu yàgg waaye nag xëy na euh, doonutoon muy génn loolu bu ñu ko dogalee seet ko mu nekk ay mbind yoo xam ne ëpp na ñaar fukk ci ay teg ci ay article yoo xam ne bind na ko ci ay ay thèmes yu tasaaroo ñu dajale ko génne ko moom itam mu euh, ngi ko gisee xaaj bi ñaari xaaj la woon xaaj bu njëkk bi moo njëkk génn moom dajale mbooleem li nga xam ne da ko ci xam-xam euh, ci yoon wi ñaareelu xaaj bi nag mu ci ay thème d'actualité yoo xam ne ci mbiru doxal na àdduna ci la jëm yëpp itam ñu gis ne comme doomi ko def xalaat yi comme mën nga ne xalaat waa yoon wi la ci seen diine ak seen àdduna moo tax ñu génne ko mu ñaari xaaj Euh, nekkoon ci làkku arab ñu a wax nag ñu génn ci làkku tubaab làkku a waaye bii moom ci làkku arab la génne beneen bi ci wàllu warteef ñaari way dencante ci lislaam nu mu ko nu mu ko tegee ñaari waxtaan loolu yoo xam ne dañoo gis ne ñaar yëpp am na solo amal mën naa amal solo gëstukat yi wala boog euh, ñi nga xam ne dañuy bëgg dund seen diine nekk ci jaam te xëy na seen seen njàng mën naa am sori loolu lool wala sax mën naa am seen maam sori na waaye soxla nañ ci ndolleen téere yooyu nag am mbokk yoo xam ne waa am am nasiha lañ tuddee seen bopp di ànd ak moom di ko jàppale ci ay liggéeyam ñoo ko. jëlaat waxtaan yooyu mu defoon ci wolof bind ko ci tubaab transcrire ko kon ci français waaye yaay ren jëlaat liggéey boobu nag toppaat ko settantalaat ko génn ko téere loolu dañ ne am solo ndax loolu mën ko lool ci yoon wi daan nañ bind rek di génne waaye nag waxtaan mu jaaree di nekk téere moom ko lool te gis nañ ne ñu ngi sotti fii xam-xam na xam-xam boo xam ne léeg-léeg ci baax loolu mooy purification de l'âme la purification de l'âme yaakaar naa waxtaan la yoo xam ne ñu bari ko ñu defoon ko ci at yàgg wax léegi na juróom at beneen bi itam nga xam ne mooy de fi ñaari yoo dencante moom itam waneen waxtaan boo xam ne ba mu ko defee léegi def naa ne war naa ëpp juróom at ñu dajale ko kon muy ñaari téere yoo xam ne ci màggal ko ren ci jot moom incha allah dina jot fii fan yii ñëw euh, ñu def ko ko liggéey boobu yëpp nag ñu def mu ñeenti téere yoo xam ne benn bu mu dañu def dafa weeri te mu fas yéene mu wéy xam naa yi ci toppaat ak yeneen ñu ko yeneen naal yi nga xam ne am nañ ko suñu ànd Moustapha dina ci ñëw ci anam bu a yaatu waaye ñu xam ne liggéey boobu yëpp yaayaram dafay def comme ni ko la waaye dara luñ ciy jaay amut suñ ko defee ba mu seet mu ko ko noona lu mu ci tey yaay yaay nag mooy fexe ba xam-xam boobu tasaaroo waaye amu ci dara loo xam ne mu nii différence di ko wàccee kon ndax moom ni a gën la di ñaan yàlla mu nangu ko te sëriñ bi gërëm ko te yeneen réalisation yu gën a mag incha allah topp ci biir lépp ba mu ñëw ñoom ñu jëriñu ñu jëriñu ñu jëriñu bu ci leer li am na solo lool euh, kon na ne jot nañoo amal ay mbir yi amalul yëpp nag yi ci ëpp solo ay bind la yoo xam tasaar nañ ko am na ci boo xam ne dañ koo transcrire nekkoon ay wax ñu def ko Euh, am ci fay euh, mu nekk jëf ju am am solo euh, waaye day mel ne bind yi bari na fi ñu tollagum ñaar ñaari bind ka lañ ñëwagum kon day mel ne waras naa xam man lay man lan yi nga xam ne ci lañ sukkandiku ba tànn téere war koo mool wala tànn bind ka war koo moolal loolu suñu soxna moom ci mën a jëriñ tuuti rek. waaw tey asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi si daan ci jiital bi. Euh, comme ni ko ni nga ni ko waxee jiitoo rek euh, yaari moom li ko tax a mooy tasaare xam-xam rawatina gëstu yi xam ne yëpp yi ni euh, ko xoolee xam nañ ni dafa am ak ràññiku gu am ci xóotaayu gëstu ki ko def waaye it solos jëm ni lim ëmb kon téere yi nga xam ne lay tànn ak yéen dañ koy tànnee ci anam wuute li ci jiitu mooy li ñuy téere bi jox ndax saa su nekk am na ñu bari ñoo xam ne mën nañu jox téere yu bari te wuute waaye nag dañu xool li nga xam ne ñu li ñu li ñu présenté ñu mel ci côté richesse ak ci côté waa ji lan la mën a lu bees ci gëstu ci yoonu loolu mooy critère bi ci njëkk nga xam ci boppam téere bii yokk ci yoon yi ci yoon mu dit ñaareel ba dañu ko bind ak jëmmi li mu solo si nga xam ne mën na ko mën na ko xam ne ñooy diir donc critère bi bu duñ tëjee daal di jël téere daal jën génne waaw dañuy xool bu baax a baax li nga xam ne moom la téere mën a indi ci lu ci lu ci lu am solo eh, li ko topp mooy li ñuy xool ñi nga xam ne xëy na ay bindkat la ñoo xam ne seen mën-mën dem nañu wala ñi nga xam ne sax doon mën ko sax waaye gis nañ ci ne ñoom téere ñu ngi nelaw ca fañ ko fañ ko tekk wala ñooñu dañ gën a ciblé di xool téere yooyu ci boppam eh, fan la toll lan lañ ciy mën a yokkute ndax te njëriñ li nga a ci ci ban la ñuy tàmbali ak ci ban lañ ciy teg su ko waxtaanee ñu tànn ci moom ñu ngi sukkandiku ci téere bi euh, mbind mi ni nga ko ni euh, nga ko bindee rafetu waaw ba tey it li xam ne moom la mën a ci lu bees ak ci ci ak baaxaaya ak ci ak ak i madda matière bi nga xam ne moom ci xam-xam nan la mën a jëriñ fi xam ne ko niir loolu nga xam daal mooy ëpp solo ci ni ñu xoolee euh, téere yi ñuy proposé. Euh, avant ñu koy jàngat wala avant ñu koy ñu koy commission ñu jox commission bi nga xam ne ñoom ñoo ko war a euh, xoolaat ko liiraat ko defaraat ko ba noppi ñu delloo ko auteur bi ñu ko téere bi ñu leen ci gis euh, ci loo xam ni moom la ñu mën a wax ay seetlu la boo demee moom it bu demee ba confirmé ba liwaay bu gisaat lépp ñu door a jël téere bi waxtaan suñu biir xool ñu koy éggale bu mel ko kon ci gàttal daal ñu mooy anam yi nga xam ci la téere bi jaar laata ñu ngi jërëjëf sëñ Cheikh na kàddu yi am na solo lool kon daal ci gàttal te yi ñuy tànn day am ay yoo xam ne dañ cee sàmmanteel euh, dinañ xool dëgg-dëgg téere bi dinañ yàmboo waaye dinañ xool tam volume bi ndax loo xam ne ku ko mool dana euh, lu jàpp mool déet matière boo xam ne ak génn jàmp na boobaa nag mm, ñaan sax moo ko man waaye nag am na yeneen soxla yu ko gën a yu gën a jàmp ci moom moom mbooloo jàpp ci ngir loolu gën téere seen xaalim bi xalaat kat moo xam ne ay ateet ñu ngi xalaat di bind di tasaare dana baax léeg-léeg yooyu yam làmboo ci ay critique ci ay loo xam ne day defar yëpp nekk loo xam ne loolu tasaare ñëpp mën ci jot si ñax madu euh, téere bu mujj bi boo xoolee bu wax ci ñu nan la ñuy laabale bakkan lan ab sëy ñaar ñu seq lan mooy war ak lan mooy seen i àq lu amoon solo yoo xam ne ñëpp dañ ci war a jot rawat na ñi nga xam ne ñoo fare ci biti léeg-léeg yenn yi nga xam ne ñu koy bind fii dinañ am bari day aussi yoo xam ne koy tey jot jërëjëf kon ci seen euh, critère waaye comme ni nga ko waxee léegi yàlla yemul euh, ak tasaare waaye am na xam ne ay naalam la ak yoo xam ne koy euh, mu ngi koy amal ak jëm nga amal ci ëllëg sëñ Amdi Moustapha yaaram am doxam fi mu jëm. bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëñ Modou ñu sant bu baax ci. Eh, dox leenu jotaay bu am solo bi di nuyu mboolem mbokk yëpp rek di ziara mbokk yi nga xam ne ñu jiitu ci jël kàddu ci leeral leeral yu am am solo yoo xamante ni yëpp dafa aju ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni mbooloo mi eh, di am mbootaay boo xamante ni ay murit yu am yéene ju sell ci liggéeyal Sëñ Tuubaa te féetale seenub liggéey ci wàllu gëstu ak yaatal njàngaleem Sëñ Tuubaa eh, ñoom ñoo ko séq ni ko sëñ Mouhamed Lamine Sarr waxee ci njëlbeen ki ko jëwrin mooy sëriñ Idrissa Mbacke moom sëñ Moutala day mel sax boo xoolee tur wi dëgg-dëgg barkeelu nañ ci ci liggéeyub sëriñ sëñ Moutala boobu nga xam ne da ko jëm jëmmal ci wàllu xam-xam ak yaatal ko muy al te mu moom tamit mu barkeeloo woon ko ca turu université bu mag boobu loolu yëpp li muy wëndu ñii seenu dox dañ koo jëmale ci gëstu xam-xam ak yaatal ko ak euh, jëflante ñi nga xamante ne borom xam-xam lañ euh, ngir dellu si ci laaj bu sol solo nga xam ne laaj nga ko mooy euh, jëm mbootaay gi fan mooy seen jubluwaay maanaam la fan lañ jëm la ci jiitu mooy fexe ba li ñuy wax vulgariser maanaam yaatal njàngaleem Sëñ Tuubaa mi ndax Sëñ Tuubaa wooteem bi wërta yam rek ci ci Sénégal Sénégal rek taxum ko jóg euh, bal adduna euh, bopp moo ko tax a jóg ñu ne adduna bopp ko tax jóg nag euh, war naa am ñoo xamante ni seen liggéey day gën a jëm ci tasaare ko fu fu njàngale mën a egg ci àdduna ñu fexe ba yeggale ko ci moo tax loolu jéego day tàmbali nañ ci dox ay jéego te mooy acte de colloque bi nga xamante ne seen ndax mu dem sax dindi ma ko ci suñ champs bu yaatal ci lool dañ ca noppee ci ñoom luñ ko waxee nga xam ne dajalee na ay nit ñu dajaloo ca France def ko bañ noppee lañ ca jëlee ci ay. nga xam ne euh, ab téere la lañ ci doon wax ay wax la waaye bañ noppee lañ bañ ko dajalee ci ab téere dañoo sonnee ci mu egg ci ay réew yu wuute waxuma la biir France mu taxaw mu mu tasaaroo fa waaye dañoo fexe ba biir Europe mu tasaaroo fa téere bi ñu egg na Suisse dem na Belgique dem na Italie dem na ci yeneen barab yoo xamante ne ay ay ay murid ñoo fa nekk dem fii barab yoo xam ne sax du ay murid ñoo fa ñoo fay ñoo fay dajaloo waaye loolu lañ ci jublu mooy vulgariser maanaam fexe bañ xam ne Sëriñ Tuubaa mii ko am la. waaye nga am njàngaleem ci ñi la ko ñi la ko sukkandikoo nga xamante ne ñooñu buñ jotee ci téere boobu mën na leen ba bañ a doy sëkk sëkk li ñu soxlaa xam lépp waaye mën naa nekk tàmbali gëstu ci sëñ bi loolu itam aw aw aw ci ci jubluwaayu institut bi ci la bokk am na beneen jubluwaay boo xamante ni téere bu njëkk boobu def na ko mooy gën a euh, sonn gëstukat yi bu leen wan ne mën nañoo gëstu loo xamante ne mën naa amal njariñ ñëpp maanaam loolu euh, loolu ci ci ci ci jubluwaay la bokk mooy sonn ñi nga xamante ne ñooy gëstu xamal leen ni gëstukat bu mënta ñàkk la te anam bu mën a la jëlee Sëñ Tuubaa la loolu itam bokkoon na ci liñ ci doon ndax boo xoolee ni ni ko sëñ bi doon junjee mbooleem fu waay mën a nekk. ci adduna bi te nekk koo xamante ne dañuy gëstu si yoon wala ñuy gëstu loo xamante ne amal na njariñ yoon yi wala muy jàngale muy yaatal njàngaleem Sëriñ Tuubaa dañu fexe ba contact la def ay moyens ci la nga xam ne moom nga nekk di ko gëstu ñu fexe ñëpp mën ca jariñu boo xoolee ñu nekk Maroc doon def lu mel noonu mooy seen isko bu tudd nañ ko mel ne docteur Serigne Souhaïbou Thiaw ñoom def fexe ba gëstu yooyu xamante ne soxla woon nañ ngir ñu def ko ci mu ñëw France mën koo jàllale waaye ba mu noppee ñu fexe ba ba tasaare ko kon loolu day wan ne maanaam so gëstukat yi fu ñu mën a nekk IAREM yëmut ci rek toog di xaar ku leen indil ab téere waaye ñoom tam dañuy def ay démarche di di yor seen i seen i seen i seen i seen i bët di xool itam ñi nga xamante ne ñu ngi def ay ay farlu ci jéem a gëstu a jaatal ñoom ñu dem ca ñooña itam di leen soññi ca loola ñu nekk di leen ca di leen ca ca dëgëral bokk na ci jumluwaay yi ñu am itam bu ñu gisee ñoo xamante ne ay jàngkat lañ di ay gëstukat waaye li nga xamante ne moom la ñu jàng ak gëstu am na foo xamante ne bu fa yeggee day laaj ak ndimbal loo xamante ne mooy tax ñu mën a eggale seen gëstu yooyu ak seen njàng moom fañ ko bëggee eggale te bu eggee ba foofa dana gën mun a amal njëriñ mbooloo mi nga xamante ni ñoo ko xaar ñu fexe ba ñooñu itam ñu ñu ñu wàllu leen ñu wàllu leen ci wàllu ci wàllu ndimbal fexe ba financement bu ñu mën a def ca loola mooy ci moo xam moo xam solo yi lañ koy tuddee comme li nga xamante ne ab jàngkat wala ab gëstukat da koy soxla ci mën a euh, jënd yenn téere wala mën a tukki yenn tukki yoo xamante ne da cee def ay gëstu yoo xam ne mënu ñàkk te loola muy def ñu fexe ba loola a sotti kon ko waxee si Modou lu war a euh, indil ko ab téere mu fexe ba liiraat ko jàng ko buntu lu am solo ni ko siñ sam na waxee waaye yëmut ci loola waaye day fexe ba ki nga xamante ne daa nekk ci processus su bind ak gëstu bala muy eggal ci loolu ñu mën ko caa fekk jàppale ko ca ba loola muy def mu man a am benn qualité boo xamante ne boo xasee excès ci ñun daanaka liggéey bi ñu ciy defaat beneen liggéey la boo xamante ne xëy na bu technique lay nekk waaye bu bu bu xam-xamee dëggantaan la muy joxe ca ca ca suba ba da koy jox àq ba nga xam moom la yellool te loolu mooy yoo ko war def faaw yaaram daa jàpp ne loolu bokk na ñu ko ñu ko war a dimbale ngir mu ngir ngir ngir ngir mu amal ko kon daal euh, euh, bu bu déggee liggéey bi da xam ne liggéey bu yaatoo yaatu la bu laaj ay moyens la moyens yoo xamante ne moyens moyens ci wàllu ci wàllu ci wàllu xaalis waaye ci wàllu xalaat waaye ci wàllu relation loolu yëpp euh, mbootaay gi da ko soxla képp koo xamante ne eh, wax ji egsi na ci yow wala nga gis loo xamante ne daa taq ci yaaram contact yi nga xamante ne mooy daw ci bas d'écran bi wala ngeen gis ko ci image yi mën ngeen cee jaar ngir contacter waa IARAM ngir joxe seen participation yéen itam ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne fas yéen nañ ko liggéey Sëñ Tuubaa te yëngu li mu bind lépp rek ak jubluwaay bi mooy fexe ba yaatal njàngalem Sëñ Tuubaa bi nga xamante ne njariñal kese la ñu fexe ba adduna bépp mën cee jariñu ndax looloo taxoon Sëñ Tuubaa miy jub looloo tax itam yàlla def ko muy xéewal goo xamante ne adduna bépp la ko yàlla xéewale mbindeef yàlla yëpp la ko xéewal la ko yàlla xéewale na ko sax si di waxee woon ca ca ca waaw kon daal ñu ngi woon ñëpp yaaram nekkut loo xamante ne lu tëju la ni ko si moom bind na fi wax na ne ay nit ñoo xamante ni ñoo ko seq waaye li ñu wax rek ku ku wal mburu moom tudd ab dëkk faaw am ay nit ñoo xamante ne ñoo jëmmal jëmmi mbootaay googu waaye tëjuwul nekkul loo xam ne itam faaw ñu rek ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko moom waaye képp koo xamante ne yëg nga ne bëgg ngaa liggéeyal Sëñ Tuubaa te nga te la nga ko bëgg a liggéey moo xam ci sa doole la moo xam ci sa xam-xam la moo xam ci sa alal la bismillah da nga xam ne liggéeyub Sëñ Tuubaa la bu ubbeeku boo xam ne kenn ku nekk mën na caa mën na caa mën na caa tàbbi nam ca mën a bàyyee itam mu bàyyee ko ca ba jubluwaay bi moo yaatal njàngalem Sëñ Tuubaa ci ci àdduna bi yëpp ñu mën kon loolu daal moo nekk mu nekk li nga xamante ne mooy kàddu yu Sëñ bu fekkee ne fàttewuñ ci dara di ñaan yàlla suñu borom mu fekk loo ñu màggal gi ay at yu bëree bëri te jubluwaay yi nga ne am nañ ko mu yeneen liggéey yi nga xamante ne fas yéen nañ koo jàll ni nga xamante ne noonu la suñ euh, changement bi doon waxee yi nga xam ne jot nañ koo def moom weesu nañ ko incha allah dañuy jëm ca kanam yeneen yi ñu dëgmal yàlla na ci yàlla def taw feex ba ñu eggale ko ni ñu ko bëgg a eggale ci barkeb Sëñ Tuubaa bu baax mi ñu liggéeyal wasalaamaaleykum wa rahmatullah Sëñ baax mi waaw kii Sëñ Tuubaa bu baax baax mi Sëñ Tuubaa moom <laughs> jërëjëf si ngeen bi bisakulaw bi kàddu euh, euh, moom dëgg dëgg ji mooy mooy solo mooy solo liggéey solo liggéey bi as su ndaw ñoo koy def soo xam ne bu ñu bu ñu am bu kërin amut wala leneen waaye bu mënoo yoon fekk na ay contribution yu volontaire moo koy def booy lépp liggéey yëpp lu gën a mën loolu tàmbalee liggéey la boo xam liggéeyu sin bi la dangeen cee wuutu ne wuutu ne leen ci wuutu nag ku ci ne lam ca nekkul lu ñuy xeet moo xam ci xalaat la moo xam ci lu ñuy laal lu ñuy ab dërëm wala lu maanoo ñu ci mën a jàppale euh, te xam nga tamit comme ni ko waxee léegi li jot a gën a am ñëw day fekk ni kon am nañu aaj bu bari bu soxla waaye fan jëm mooy gën a kawe bu ñu demee ba war a jàppale ab gëstukat ci loo xam da koy jàpp ne la mën a jugee fii ba mën a wuti fa benn information boo xam da koy am wala mën a jugee fii dem Mali wala mu dem Washington wuti fa ab dara dara loolu jàpp naa ne euh, lu am am solo te loolu lay doon bu ñu demee tamit war a fexe ba kon gis ci moom ay. Euh, prédisposition yu am soo xam ne kii ko jàpp nekk war na koo jàppale mu mën defar surtout nga thèse am ca Indonésie wala ca Malaisie wala euh, ay ay yoo xam ne jàppale na képp ku jàpp a am euh, solo lool ñi nga xam ne nag dañoo toll ci gëstu te bind tamit ñoom it kenn dañuy des ndax ñoom it seen mbind yaaram noppi na ngir mën koo édité ngir war koo ngir seen mën a taxaw Euh, faral leen fa nga xam ne du ñàkk am na yenn gàllankoor yoo xam ne xam ne war na ma waxoon léegi am na benn rigueur bu ci bu xam ne da ci du mën a euh, ba porté la mu war a mën a jur ak it ñi euh, ci aju daal day bari loolu lépp xam ne seen sax ma waxoon ne ko dama ci kon yaakaar naa dañu bàyyi kàddu yi fekkee si leen amul leen ci bëgg a dolli di santaat ñëpp di gërëmaat ñëpp di santaat ñëpp daal Muqaddimatul Xidma euh, ñi nga xam ne daal fii kër Sëriñ Tuubaa tey gi ñuy ne loo xam ne ci liggéeyu sëñ bi la ndax it ñoo bokk lu ñu def euh, dañ koo dañ koo euh, dañ ne ñoom liggéey bokk rek kon daal di leen waxaat ñaanal màggalu jàmm noonu suñu borom nangu ko te ful ko ci barke borom Tuubaa jërëjëfati